salaamaaleykum Ban salaamaaleykum waa chaîne bi donc je crois que ñu ci bëri jot nañ ci ci ay bés bi nga xam ne moom la ñu génn muy inceste bu nga xamante ne moom la ñu doon dénoncer depuis quelque temps. donc comme niñ koy waxee il s'agit d'un de famille boo xam ne yàgg na di ko def commencé ko par le cercle familial ci ay sœuram ay cousinam malheureusement waajur yi ak kilifa yi nga xamante ne ñoo ci waroon teg seen tànk dox ko wax ko defuñu ko. naturellement liy law di law ba ñun ñi di ay njabootam nekk ay deretam ay doomam jëcc suñu wàll moo xam man ak sama benn rakk man personnellement bu ma ko doon dénoncé yàgg na c'était en 2009 euh, famille bi ñu def ko yëpp famille nëkk nëqal euh, jabaram ji nga xamante ne moo jur sama sœur boobu nekk victime aussi biñ ko woowee mu jooy ne xale bi dafay fen si ko am 10 11 ans mu ne xale bi mu ne man damay fen dama bëgg a tas sëyam malheureusement ñuy dox ba ay at lu teg euh, doomu boppam euh, si biir la même chose femme bi dox ay tànkam ñëw soldaalam ñëw ba ci kër ga wax li nga xamante ne moom la ko waa ji def euh, maanaam lu mu sàkku sama rakk boobu donc man ma jël sama daal dem seeti ko parce que franchement sama kaaw rakk bi daf ma daf ma bouleversé man je ne pense pas que sax lim ma sëkk li lim ma def metti na ma à ce point sama kaaw rakk bi moom a gën metti parce que aussi euh, en tout cas daal métti na ma je sais pas xaw ma nu ma koy waxee métti na ma ba fu métti yam donc nag euh, ma dem seeti femme bi laaj ko démarche yi mu def mu ne ma porté na plainte te mujjul fenn ba ma laajtewee euh, fu mel ni AGS ma def sama enquête ñu wax ma nii ak nii ngay def xamal ma ni ma personnellement les faits me concernant étaient prescrits et que dénoncé laa mën bu ma defee dénonciation euh, yaayu sama rakk bi ñëw wax yoon def li nga xamante ne mooy li war ma contacté ko wax ko ni ko c'est la seule manière boo xamante ne mën nañu jàppale suñu yeneen rakk yi parce que kii ku ko bàyyi mu def ko ñeneen ni mu ne ma waaw bu ñu ma woowee dinaa wax ñu woo ko nag muy nëkk-nëkkal ak di dër moo xam lu ko si xiir parce que dem na ba à moment moom personnellement dossier bi nga xamante ne mooy dossier sama sœur bi ONG bi nga xam ni ñoo ko yoroon moom dem na ba bay di jéem a récupérer dossier bi kenn xamul biñ ko laajee mu ne juge bi moo ko soxla na ma yàlla bal elle a parce que juge bu soxlawee dossier yu mel noonu surtout que ay ONG di ko di ko di ko càmbar di ko liggéey juge yi xam nañ ñuy def xam nañ fu ñuy jaar ba récupérer dossier boobu mais du ñu jaar ci ay tierce personne pour di ko utiliser pour di ko di ko di ko di ko di ko yor pour di si jot plutôt donc ah euh, kenn xamul daal lan moo tax ba moom à un certain moment bëggatul wax lu ci jëm Euh, femme bi nga xamante ne moo nekkoon Thiès nekkoon AGS doon ma gunge au niveau du tribunal may def audition yi di wax ba benn avocat ba mu yëgee euh, problème bi fii Sénégal porté wu volontaire pour soutenir ma question bu mu laajte maanaam parce que waa ji man après sama dénonciation dañ ko téye pendant trois jours avocat bi su laajtewee ban date la ñu jàpp waa ji femme bi mu ne xamatu ban juridiction tribunal wala ban date lañ ko libéré femme bi loo ko si laaj mu ne xamul donc euh, dem na ba ci biir ak moom engagement bi mu amoon mu dem ba ci biir daal mel ni ku ñu xoqatal wala ku ragal doo comprendre te elle ne pas la parce que sama sœur bi benn femme bu bokk si benn ONG bu ko doon suivre euh, wax na ma ni ma ko moom bi muy suivre sama sœur bi dafa xëy ñu lakk bureau lakk euh, chambre bu mu amoon foofu au niveau de Thiès donc looloo tax moom mu ñibbi ci Dakar donte porté woon nañu plainte ba xam ñu def loolu mais il s'en est jamais rien suivi patron wam mi boot ONG boobu waxatul lu ci jëm waxatul ci dossier bi donte dossier bi mi ngi ci seen yoxo ñoom euh, ban nag man may laajte ba xam ñun réew mi dafa am koo xamante ne moo koy jiite te ñun xamuñu wala boog mu am justice ku ma am ndey wala justice ku ma amul ndey wala doo comprendre daal injustice beeg impunité bi parce que koo wax ay demal gis psychologue demal gis psychologue c'est bien beau et c'est très important aussi mais dañuy fàtte ni première prise en charge bu société bi waral ay victimes du prise en charge psychologique mais prise en charge juridique la parce que defal cinquante ans ci thérapie sa bureau ngay jàkkaarloog moom ci mbedd yi amul benn njëriñ parce que tôt ou tard da ngay reproché waat ci say traumatisme di gën am lu la nakari may ñaan nag di laajte ñi nga xamante ne ñoo fiy xeexal jigéen ñi li laay wëri la suul yi arrêté leen di mbubboo victime yi di mbubboo yenn problème yi parce que ñun sonn nañu ku leen ci woo soit du ngeen faale wala bu ngeen woo faalewee promettre monts et merveilles lu leen ngeen dig ñu ko te bu taxaw amee kenn du leen gis wala ngeen dem ba ci biir téye seeni loxo am na yenn métier yu nga xamante ne am na yenn combat yu nga xamante ne kuy xof du ko mëne kuy tiit wala ngay daw res doo ko mëne sa bakkan bi ngay tey la mu jaral la ko nga dem ci ba jeex te yàlla rek tax parce que yàlla dëgg lay àndal yàlla dëgg la bëgg nit ñi pour man dañoo war a comme ni benn kilifa diine doon wax ànd te dëgg rek tax parce que dëgg du tax nga dee te sa waxtu jotagul dëgg du la xañ wërsëg boo xamante ne moom la la yàlla suñu borom jagleeloo li laay wërale suul yi nit ñi nañuy wax dëgg tey dox dëgg kii nii di sama waajur bu góor amaana yàlla bu ko mayul woon teraanga bii kon famille woon war nañ ko ginnaaw yàgg na kon diri nañ ko yóbbu ko fa mbaxane doone benn yàgg na mais tey jii nii amul kenn ci famille bi ku nga xamante ne nangu na témoigner am na grande sœur bu nga xamante ne c'est une victime def na ko ko boobu man xanaa juddooguma c'est une grande directrice dans une grande entreprise du Sénégal mais boo ko waxee tey jii nii mu ne la moom pour rien au monde elle ne va son frère moo xam libre na si mais bu saltewee ba frère boobu def ko jëf ju bon jooju nga xam ne ñëpp xam nañ ni frère def na ko mu tourné waat sa même frère di ko tuddee doom di ko may njëkkee nga la waay ñoo xam ñoo salte li nekkatul famille de c'est sale dafa mel ni rek ngeen baal ma géttu béy ku jot rek tëbu sa moroom bu ma xalaatul man xalaat sama ay rakk na xalaat rakkam boobu nga xamante ne ñoom ñëpp ak sama baay ñoo bokk baay rakkam boobu nga xamante ne xelam dem na ndax peut-être moom li ko yàlla may ba mu surpassé loolu jàng ba yàlla may ko teraangaam rakkam boobu peut-être amul loolu xelam dem heure bu génnee gis waa ji wala mu gis njabootu waa ji xelam demaat si li ko nakari mu replongé waat bu ñu xalaatul ñun ñii man ak sama ay rakk mu xalaat sëram boobu noonu mais bu ko ko yëfi àdduna jarale ay affaire u maslaa yu nga xamante ne basé wul ci lu sincère basé wul ci lu dëggu basé wul ci lu neex yàlla bu ko ko jaralee moo xam na xalaat ni rek jigéen la et que am na ay doom doomam yooyu noonu moo xam sama waajur bu góor moo xam feneen li ñu dal nii li ko dal dal ma man dal sama rag mën na ko dal tôt ou tard femme bi nga xam ni mooy jur sama petite sœur dem ba ci biir nangootu si wax parce que lii à lan lay nurul je m'en fiche na dal yeneen doomu jàmbur yi mais lan lay ragal ñu naan waaju dafa am sëriñ dafa puissant su munoon man mii dee naa bu yàgg wala ma dof su munoon man duma amati benn suvenir nañ ko wax te dee yenn yi da nga koy combattre te yàlla rek tax yàlla dëgg la àndal soo si deewee nga xam ne jihaad la yàlla du la seetaan yàlla dëgg la bëgg nit ñi nañuy wax dëgg te yàlla rek tax c'est vrai que sama sœur boobu noonu mineur la et yaayam bu bëggul kenn mënu ko forcer may laaj nag association yi nga xamante ne ñoo fi nekkal xale yi nekkal fi jigéen ñi nekkal fi mineur yi yow sa yaay su bëggul denoose dañ lay seetaan nga continuer ci say traumatisme li lay métti di la léegi yeneen doomu jaamur yi nga xamante ne nag ison exposé ñu leen di seetaan ne puisque yaayu diw bëggul wax kenn du si def dara xale yooyu noonu ñu leen di seetaan di lem seeni loxo ba maar dee taali ñoom itam ñu jël seen wàll fekk bëy woy na mbuus ku ne naan su ma yëgoon su ma yëgoon may lancé appel nag ministère de la justice di lancé appel juriste yi di lancé appel association yi nga xamante ne ay vraie association lañ waxuma association baana baana yi wala ay féministe baana baana ñi nga xamante ne dëgg moo leen ñor ñu laay waxal ban parce que lii métti na lii ñaaw na ba fu ñaaw yem di wax képp ku nga xamante ne yaa ngi jot lii dofoo leen feebaroo leen xam ngeen bu baax de qui est-ce qu'il s'agit juge yi ñoo la ko gën a xam juriste yi ñoo la ko gën a xam li tax nag dossier bi juridiquement mënul avancer man moo ma jaaxal femme bii nii nga xamante ne moo jur doomam mais lii à la à complicité lay nekk sa jëkkër def ko sa doom nga ne pat doo wax lii mooy lan nañu nit ñi jàppale ñu xeex lii nii mu jeex parce que lii dafa ñaaw lii mënatul wéy. na ma yàlla baal mais baan réew mi nii dëgg daf fee tumuranke dëgg daf fee tumuranke jigéen ñi sonn xale jigéen ñi sonn am na yoo xamante ne boo koy dund euh, say moroomu jigéen sax wala say moroomu waajur yu jigéen sax ñoo lay ñëw si njëkk a dëgg seen tànk xoolal femme bii rek nga xamante ne donte juruma ma bokk ak moom kër nit boo muusee rek. même avant ma faa dëkk di fa ñëw yendu yow sa jëkkër naan la demal ci waañ beeg di tëju ak doomam bu jigéen naan da koy sang ay garab ay saafara di la wax waxi dof yow soo nekkee nit rek ah loolu war na am lu mu la def surtout que sa jëkkër jooju noonu yow ci sa bopp sa benn ñees sa jëkkër boobu noonu biiral na ko ah yow loolu am na lu mu la war a def xale boobu noonu bu toogee quelque temps après ne waajuram def na ko lii ah am na loo xamante ne même boo ko gëmul sax nga am vigilance mais yow na ma yàlla baal ndëgam nag sa jëkkër moo mën a biiral sa ñees nga des ci sëy boobu noonu na ma yàlla baal kooku jigéen boobu noonu ñu baal ma mais bañul dara sa jëkkër boobu di ñëw sa biir kër di la traversé di traversé sa salon di la joggi di dugg ci néeg ak ay jigéen ay bon ak yu kenn xamul nga des ci sëy boobu noonu na ma yàlla baal mais jigéen boobu noonu xeex bi may xeex sax mérité wu ko mais heureusement que man taxuma jug xeexaluma ko sama ay rakk moo tax nag wàllam wéy na ba pare mënatuma dellu ginnaaw li muy dund dund na ko ba pare donte nag metti na ma ba fu metti yam mais au moins ñu xalaat ko xalaat ñi nga xamante ne ñooy suñu yeneen rakk yi donte bokkuñu yaay c'est pas important deret bi benn la mu jàppale ñu wax li nga xamante ne mooy dëgg nee naa leen comme ni ma Abdou Aziz baax di wax dëgg du tax nga dee te sa waxtu jotagul dëgg du la xañ wërsëg bu nga xamante ne moom la suñu borom jagleeloon nit ñi nañu wax dëgg te yàlla tax ay dafa am sëriñ dafa am ay connexion dafa am ay nit loolu waxi kasaaw kasaaw la nit ki may waxal bis bu mënoon man dee naa bu yàgg su mënoon kon dootuma amati benn souvenir mais depuis presque quinze ans même wax ji ma koy wax fu ma toll date yi changé wul heure yi changé wul benn yoon changé dara changé wul si kon yaakaar naa ni ku dof du amee noonu euh, euh, waxu dof waxu nit waxu dof du amee noonu constance nit ñi nañ delloo seen xel si yàlla boo waxee mu naan la xale bi waxatul lu ci jëm man ba ma ci tollee waxatuma woon lu ci jëm da ngay toll fu nga xamante ne da ngay refoulé phase de refoulement ngay toll doo wax lu ci jëm ba toll benn moment nag nga xamante ne dangay am lu la metti mere ñëpp parce que sa waajur yi sax danga leen di mere na ma yàlla baal da ngay toll foo xam ne da leen di amal en parce que da nga naan ba nga amee lu la metti kenn taxawul si yoon kenn taxawul xeexal la lii dafa metti ñu koy bay bayal di seetaan su bëggee gis ay doomam di ñëw di seeti ay doomam su bëggee jëndal leen ay cadeau jëndal leen ay cadeau loolu man moo ma ci gën a métti parce que je l'ai vécu forme lay nekk pour victime bi nit ki toroxal la yàq sa àdduna yàq sa yaram ba pare di la yónnee ay tiseek di la yónnee ay wecci ak loolu bul xam sax yow ci victime bi ci xolu victime bi nu muy def victime bi avec ça ñu naan la ay waajur waajur la yàlla li mu wax dafa leer yàlla ba muy wax dafa am ay xeetu waajur yu tax muy wax bu nekkante ne nag ci diine rek lañ ko deg ak ci charia kii mooy façon waajur yi nga xamante ne dañ leen di tër ci pénc rend leen parce que loolu moo dagan ci moom may ñaan nag ñi nga xamante ne ñooy xeexal femme ñooy xeexal jigéen ñi di xeexal xale yi sama sœur bi nga xamante ne yaayam nangu ko xeexal ONG yi ak droit de l'enfant ñoom lan lañ ci wax sa yaay dafa xof wala ñemewul mais au moins xanaa am na ñu nga xamante ne dëgg moo leen fi tax a toog dëgg la ñuy xeexal wala àq ak yelleef doomu aadama ba tax na xale boobu noonu ñu mën ko delloo son intégrité humaine xeexal ko li nga xamante ne mooy àqam ak yelleefam parce que lii tant yoon deful liggéeyam moo xam waa ji dañ koy tëj ci interne dañ koy internet moo xam dañ koy tëj kaso moo xam parce que nag lii dafa metti buñ fi nekk kenn di ñu ñaan jekk parce que ba mu koy def tàgguwul kenn xalaatuñu ku la yërëmul nag doo ko suturaal Sénégal ne xamuñu ku tooñ ku fayu la ñu xam lii dafa metti bu fekkonte ne depuis le début commencé na ko papam bi ko jur xam ko ay waajuram xam ko def nañ ci li ci war kon ñun amaana duñu jot suñu wàll mais da ngay toll foo xam tu te dis que c'est ton destin peut-être que dund nga ko tu l'acceptes loolu la yàlla cëralee da koy accepter da nga koy nangu mais doo ci dëgg sa tànk doo ci noppi sa gémmiñ ba di seetaan muy lor keneen wala muy dal keneen may ñaan ñi nga xamante ni def na leen ko te xam nañu jarul ñuy tudd tur parce que xam nañu 2019 ba ma ko dénoncé Thiès dafa mel ni tuleeg màlle koo yaakaar koo yaakaarul ku ne di tëb di dal jigéen ñi mu doon liggéeyloo ku ne naan def na ma lii wax na ma lii def na ma nii wax na ma lii ku nekk foo mënti nekk ma lay ñaan nga wax te dëgg rek tax rawatina femme bii nii nga xam ne moo jur sama petite sœur lii boo ko xeexalee xeexaloo ko sa bopp sa doom nga ko xeexal xale bi su ñu waxee nga ne waxatul lu si jëm du wax lu si jëm pour le moment du wax lu si jëm te yaayu victime yi nañ arrêté di refoulé wala di yaakaar ni que ñoom ñoo gën a am lu leen metti que les propres xale yi dañuy am lu leen metti buñ ko waxee buñ ko waxul dinañ toll fu nga xamante ne nag xale bi dalay jéppi dalay bañ doonte yaay yaayam parce que buy ref buy xalaat di replongé waan danaan sama yaay nan la ma taxawee woon sama maam suñu waa kër ban taxawaay lañ ci amoon lii toll nañ fu nga xamante ne gis nga am na xeetu problème yoo xamante ne pour résoudre ko yu mel nii ngay def maanaam scandale parce que ñay bay bayal xool ngeen gis ngeen bay bayal bi ak sutura bi fan la ko mujjee fenn muy gën a rànkaaju di gën a ràngatiku di dem mu koy def sëram def ko magam def ko rakkam def ko ay cousinam et cetera et cetera def ko ay bon femme boobu jur sama petite sœur nee naa leen def na ko benn ñeesam te femme bi moo ma ko wax du lu mu fende xale baa nga bot doomam comme ñeneen ak yeneen ay bon yu nekkoon ci kër ga mu biiral leen xale yaa ngi noonu di wëndeelu koo ci jàkkaarlool seen doom yi sa yaram day daw parce que yow rek la ñuy nuróol parce que seen baay dong la ñuy nuróol man ñooñu intéressé wu mu ñun ma sama yoon nekkul si ñoom mais ñi nga xamante ne ay xale lañ nekk ay mineur nekk ay éventuelle victime femme bi nga xam ne moo waroon porter combat bi dem ci yoon dem ci ba jeex xa kenn xamul lan moo ko téye bu waxulee ñu ne kenn mënu ko forcer c'est très normal kenn mënu ko forcer ñi nga xamante ne nag ñoo fi nekk ak ak ak yelleef doomu aadama yi rawatina xale yi ñoom lan la ñuy wax dans tout léegi nit ki day noppi nekk complice parce que loolu rek lay nurool nag sa jëkkër def na ko sa ñees def ko doomam boo jurul def ko doom boo jur nga ne patt pataaral dem ba si biir nga ne yow doo continuer combat bi la ngay tiit ak la ngay xof yaa ko xam man yàlla na mu ump je ne cherche pas à comprendre nit ñi nañuy xeex dëgg te dëgg rek tax Sénégal nag dëgg daf fee tumuranke ba nit ñi nañ ñu jàppale ñu xeex lii mu jeex benn yoon parce que lii ay vie ñu ngi gase te yàq vie wu doomu aadama yi nag ma ngay wëndeelu di costume di taxawaalu fu ko neex jaar fu ko neex dugg rusuma si dawuma ci nag fu ñu war a dem dama fay dem lu ma war a def dama koy def lu ma war a dox ma dox ko ndëgam moom muy def lu bon lu salte lii nii terewu kaa dund dundam sàkkatuma la ak man mii ñu tooñ moomul nit ñi nag suñu juree taxul ñu moom nit ñi nañ ñu jàppale juriste yi nañ ñu jàppale association yi nga xamante ni ñoo fi nekk ca dëgg rek tax ak ak yelleefu xale yi nekk fi nañ ñu jàppale lii jeex surtout pour suñu sœur yi nga xamante ne ay éventuelles victimes lañu parce que lii silence bi bis bu continuer ñooñu ñëpp dinañ jot seen wàll. nga nekk nag sa famille di xool say bàjjen di xool say tata ku ne mu leer na ni mm, sa baay bi def na leen ni loolu dee sax moo ko gën. di ñaan ñëpp nag nañu wax nañu wax si bii parce que lii ñaaw na ba fu ñaaw yam